na Bërna Lengey Doudou Ka passation de service bi amal nañ ko ci diggante ñaari jëwriñ yi ca ministère économie plan ak coopération jëwriñ ba fa nekkoon nag di wax leen def na lépp la ko war ca diir ba mu nekkee ca boobu la ministère. ñun nag bi ma nommé fii ministère euh, juróomi chantier lañ ñu joxoon bi ci njëkk mooy nañu fexe ba wut ay financement yu takku yoo xam ne projet yi président de la république. Euh, soxal Sénégal ñun ñu wuti financement yi loolu gëm naa ni def nañ ko ndax ci mobiliser nañu 2000 milliards de francs CFA. Oulimata Sarr di rafetlu bu baax itam liggéey bi nga xam ne def na ko ci chantier yi nga xam ne njiitu réew mi dénkoon na ko ko. président daf nañu woon nañu élaborer le PAP 3 PAP 3 mooy stratégie bi Sénégal bëgg a teg 2024 2028 ak projet yi 22 projets 13 réformes phares yoo xam ne. Euh, il fallait ñu formuler ko muy déclinaison wu plan Sénégal émergent ci wàllam Doudou Ka di wax ni dina yeggali ca na mu waree liggéey ba nga xam ne kaka fa wutu woon a tàmbali na ko. pour liggéey yu mag yoo xam ne président de la République démarré na ko muy projet yu mag gis ngeen BRT gis ngeen euh, TER euh, bi mu war a dem. Euh, ay AIBD yëpp ñu ne dañu war a def ba nga xam ne dina dina dina mën a jeex pour que sénégalais yi mën ci gis seen bopp. jëriñ bu bees ca ministère économie plan ak coopération fësal na ay priorité am ci juróom benn weer yi di ñëw. dafa am ay priorité yu am solo ma jël si priorité yooyu yoo xam ne ñun suñu département bi ñoo ko war a saytu ñoo ko war a doxal bu njëkk bi dafa ne ni dafa am. loo xam ne mooy li ñu tubaab yi di wax souveraineté économique. Doudou Ka di wax ni noppi na ngir relever bépp def défi bu nekk ca boobule ministère bokk na ci gën a yëkkati croissance économique bu Sénégal.